الحمد لله الذي ردي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه ودعا عباده إلى دار سلام فعمهم بدعوة هجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية وتوفيق من شاء نعمة منه فضلا عليهم فضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضله ورحمته ولا منتمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبد رسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على واده غراء ومحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هدية إلى صراط الجحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل تيمية الطاهرين وعلى صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk yi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla doolu sant yàlla bu baax waaye di sant yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu kaytan may kaytan may ñu fekke ba ñu dellu si waat di def fataane fajari alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daa ima bada alhamdulilahi kasi am ala kulli xaalin waaye di julli si yonent bi salaa salaam ak waa kiram ak saxaabaam yi ak képp ko am yaa ngi topp sunna bi ilaa yawmil qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla bur yàlla ñu jaam indi ko fanaanoo ko yàlla mi jaam yàlla fa jaam yokk ñu sutura yokk ñu kattan yokk ñu wér ñi feebar nekk ci kër yi nekk ci lopitaan yàlla bi may aafiya yàlla yàlla boole may aafiya jullit àllaaxira yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel leeral seen bàmmeel def seen bàmmeel nekk rawdatu min riyaadil janna njaboot bi yàlla sàmm ne aar dégg na si yoonu siraatal mustaqim muccal si fitna ak musiba ak balaa seytaan yàlla defal rabbana atina fi dunya hasana wa fil axirati hasana wa qina azaban naar mbokk jullit yi alhamdulilah ba léegi ñu waxtaane li nga xam ne mooy cofeeli yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne yàlla am na ko si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne mooy gën si mbindeef ki nga xam ne si weer bu tedd bi la gane àdduna waaye tamit si weer bi la yàlla jël kenam bon nekk na weer bi macha allah li si nga xam ne li gën a métti julliti si àdduna naxar bi julliti mos sa am amul benn naxar wala tiis bu julliti mos sa am amul benn tiis bu gën a métti tiis bi nga eh, bés bi nga xam ne si la sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ndig ba moo juddu boobu nit ñi xamuñ ko nit ñi xamuñ ko waaw ba moo juddu nekkoogut yonente nit ñi xamuñ ko waaw xanaa e, kéemtaan yi nga xam ne ànd na moom rek ba moo juddu nga xam yaayam gisoon na leer ak yi nga xam ne mooy ñoom xalimatu saadiya ñi nga xam ne moo ko daan nampal leer bi nga xam ne moom na laa gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak suñu yaay Xadija li mu gisoon si moom yooyu ay xarbaa yu ko yàlla defaloon moom sallallahu alayhi wa sallam waaye bi nga xam ne yaa dem na ba yàlla subhaanahu wa taala jox ko risaala bi jox ko yonent bi e dal di ko ne yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir e yow mi sàngu jógal nga gindi nit ñi jógal nga waari nit ñi kooku sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba yar saxaaba yi ba saxaaba miin ko mu jàngal génne leen si li nga xam ne mooy shirk bokkaale indi leen si li nga xam ne mooy tawhid kennal yàlla jàngal leen li nga xam ne mooy alquran ba saxaaba yi miin ko mu xëy benn bés yàlla ne ah, innaka mayitun wa innahum mayitun ah, da ngay dee waaye képp koo xam ne tamit mu ngi la toppa wala képp kuy ñëw sa gannaaw tamit ñëpp nañ dee bon sallallahu alayhi wa sallam moomu bés bii nga xam bés bu mag bés bi la génnoon àdduna muy fukki fan ak ñaar si rabi awal muy bés bi gën a nekk si kaw jullit yi nekk tiis bu réer réer yi bu wàccoon si kaw jullit yi waaye nag mbokki jullit yi sallallahu alayhi sallam dafa mel ni ba léegi mu ngi fi ñun di jàngaleem fekk ñu ngi si topp si jàngaleem rek dafa mel ni sallallahu alayhi sallam mu ngi ay mu ngi ñun mbokki julliti waaye bés bu mu bàyyi jàngaleem rek de mel na ni salaa salaam sori nañu parce que lu ñu def rek te moom jàngale ko waxu ko moom loolu moom bokku ci loolu mu ne man zaada fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun képp ku yokk suñ diine bi loo xam ne bokkuloo ci dañ la koy delloo bon sallallahu alayhi wa sallam bokk na si ngëneel bi nga xam yàlla defal na ko eh, ak xeetam bi muy xeetam bi nga xam ne yàlla tega nañu mooy kuntum xayra umma mu ne yudaa nuux yowma alqiyama fa yaqul labbayka wa saadika ya mu ba yàlla ooyee nuux di gannaaw maam Adama nuux mooy yonente bu njëkka te mooy yonente yi nga xam ne ñoom ne ulul azmi min al mooy yonente yu mag yi nga xam ne ñoom la yàlla subhana taala teg si kaw yonente yëpp muy nuux ibrahim moussa isa ak yonente la muhammad salaa muy juróom e yàlla ki nga xam ne mooy nuux fa yaqul labbayka wa saadika ya nu dal di borom bi ne ko ya rab maa ngi laa uyu yaa rab yow mi nga xam ne yaay ku kawe yàlla di ko xal balaxta nda jotali nga fa yaqul na am mu ne xakañ jotali naa mooy ne si xeet bi ñu yónni yoon yonente la nuux yàlla nga koo laaj ndax yonentam bi dox na ko jotali na ko mu ne waaw jotali laa ko fa yuqaalu li ummatihi yàlla ñu dal di laaj xeetam bi hal balaakum fa yaquluna ma atana min naziru waaw ñu ne ndax kii jotali na yonente bi ñu ne déedéet ñun daal amul kenn koo xam ne ñoo na di ñu wax wala di ñu jottali loo xam ne lii lu baax la lii lu bon la soo leen defee lii texe boo leen bàyyee lii tamit boo leen defee lii texe di mu ne amul kenn koo xam ne ñëw na di ñu waar moom xeeti yonte la nuux ñooy wax de ñooy weddi yonte la nuux fa yaqul man yashhadak ñu ne yonte la nuux yow ku lay serne kan mooy a kan mooy mun a ñëw nekk sa witness sa serne ne yow lii la yàlla yónni woon jotal nga ko fa yaqul muhammad wa ummatuhu mu ne yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam subhanallah mbokk jullit yi gis ngeen li li li xeetu yonte la Muhammad Nuux ak yonte la Muhammad sallallahu alayhi ñaata junne at moo nekk seen diggante waaye yonte la Nuux taanut benn yonante taanut benn xeet waaye dafa ne yonte bi sallallahu alayhi ak xeetam bi mooy ñan mooy ñu topp si alquran ak sunna ñi nga xam ne moom la yonte sallam di wax kër yawmal qiyaama ummati ummati suma xeet suma xeet yàlla ñu yàlla boole si ñooñu mbokk jullit yi mu ne ko fa tashhadu annahu qad bala yonent bi sallallahu ak xeetam bi mooy xeetam bi nga xam ne ñoo toppoon si moom ñoom ñu dal di seere ne xakkan yàlla yonent yàlla nu mootali na jotali na li nga xam ne moom lañ ko yónni woon jotali na ko de te mootali na ko yëpp waaw gaay mi nga ñoo ko weddi woon ñoom ñoo ko weddi woon ba yàlla wàccee tuufaan boobu nga xam ne eh, ba ilaa yawmal tuufaan du ko mën a amati mooy yàlla sant asamaan lu nekk si ndox bu nekk si asamaan wàcca lu nekk si suuf xakay ndox bi yépp yàlla subhaana taala dal di xalak xeeti yonte la nuux ba mu des ña duggoon ah, ca gaal ga eh, te loolu yonte nuux nag ñooñu keroog nag ñoom di wéy di eh, nuux ñëw si ñoom nekkuloon di leen waare waaye yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam bi dal ah, li nga xam ne na ko yàlla yone to yàlla si noonu ma def leen ummatan yéen xeet yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasata muy ñoo xam ne ñu jub lañ ñu jub waaw subhanallah xool leen yàlla subhanahu wa taala li mu tagge xëri yonent la moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne wasatan ñu jub ñu xam ne digga rek ak nu métti métti métti si digga la ñu taxaw bon mbokk jullit yi lii mandarga boo xam ne wala recommande la boo xam ne wala ràññee la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala ràññeel na ko xeeti yonent la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne ko kazaalika ja'alnaakum ummatan wasatan ay adlan maanaam umma boo xam ne ñu jub la ñoo doon li shuhada waaw pour ngeen nekk ay sernde nga xam ne doo leen am farfarlu waaw xeetu yonent Muhammad sallam mu ne yéen doo leen am benn farfarlu dëgg bi rek ngeen ay sernde te loolu nag moo war a nekk si jullit yi ba ilaa yawmal qiyaama mandarga bu nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wax si ñun dafa war a nekk si ñun waaye tey ñaata nit ñooy taxaw di sernde loo xam ne du dëgg subhaanallah pour lan mbiri àdduna farfarlu loo xam ne ko fenn waaye yàlla subhaana taala mu am na ni jëpp yu baax yoo xam ne ak nu métti métti métti si dëgg rek la ñu taxaw loolu yàlla ne ñooy nekk bi nga xam ne mooy ummatu boobu sax ala naas si nit ñi wa yakun rasul aleykum shahida bu ko bu ko defee nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di seede ne ñii ñooy suma xeet bi ñii ñooy suma nit ñu jub ñi ñii ñooy si nga xam ne ñooy waxati dëgg yi mbokk julliti ñi ñoo ñi nga xam ne ñoo toppoon alquran sunna ñi ñoo bàyyi woon caaxaan yi ñi ñoo nga xam ne bugguñoo toppa bidaa bi nga xam ne dafay réeral nit te réer bu nekk safara la moo demee nit ñi yàlla ñu yàlla boole si xeet boobu yàlla nañ bokk si xeet yu ndela Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yàlla subhanahu wa taala jox na leen mandarga boobu mooy ñu jub te jubale te jaar si jub yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala boole si ñu dafa ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi